Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum alhamdulilah tey euh, ci li nga xamante ne tey moo ñu fi indi woon fi nga xamante ne tey mooy ci jumaa ji nga xamante ne mooy ah imaam a ngi ne taxaw. jub am na waaye la gën a jub la alquran di tudd mu war a doon royukaayu jullit bi moo tax mu ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na nga bégal jullit yi nga xamante ne ay woy gëm yàlla yi nga xamante ne dañuy jëf-jëf ju rafet anna lahum ajran kabira maa ngi leen dencal pay gu rëy rëy rëy xam nga yàlla fu mu waxee kabira ci dimension yàlla nga koy jël nit mën na wax lii rëy na muy quatre étage wala cent étage boo demee Los Angeles nga xam ne dangay gis loolu dafa rëy mais kooku ci dafa tolloo bëtu doomu aadama mais yàlla bu waxee ajaran kabira ak yàlla nu mu màggee noonu lay fayee jaam bi ci dimension lay fayee moo tax yàlla di wax ak yonent sallallahu wa sallam di ko jàjji mu ne wa nazzalna alayka alkitaaba tibyaanan li kulli shay'in yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam téere alquran bi ma wàccee jox la na nga xam dafay leeral lépp loo xamante ne dafa aju ci dundu doomu aadama ak dafa aju ci àllaaxira doomu aadama moom sallallahu alayhi wa sallam loolu la ko yàlla wax kon nag alquran waxu yàlla la bu kawe ci dafa am fu mu jaar ba yegg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax yàlla mu dama ko sécuriser ba dara raxu ko mu nekk sans wax kese mu ne innahu wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruuxu l amin ala qalbik li takuna min almunzirin bi lisanin arabiyin mubin wa innahu la fi zuburil awwalin subhanahu wa taala yàlla mu ne alquran bi mu muhammad lay waxal wàcce gi ko wàccee mi ngi wàcce ci borom mbindeef bi muy rabbil alamin waaye ci kan la jaar gis nga yàlla nawloowul sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla kaadaram dara waru ko jege ndax muhammad mbindeef la waaye yàlla yàlla la lan la def mooy nazala bi ruux ala amin yàlla noon na yem sax mu ne nazala bi ruux mën na am ay yokk-yokk goo xamante dana war a mën a am ci biir mais yàlla mu ne dama koo dénk ki nga xam moo tudd jibril al amin ki nga xam ne dama koo wóolu waaye nag noonu ma ko xam naa ni leneen du ci rax fan la jëm ma wàccee ko ala qalbik ci sa xol mu muhammad sallallahu alayhi wa sallam xoolal kon cela veut dire que trajectoire bi alquran jaar dafa jóge ci yàlla directement yàlla jox ko jibril jibril daw moom daal di ko déey muhammad mu fees dell ci biir dënnam li si gën a garaaw mooy lan ba mu feesee ci biir dënn bi nag yàlla gën a garantir alquran mu ne waaye nag loolu mu nekk ci sa biir dënn ëllëg dafa war a génn war ko denc fan lay jaar ci làmminam yàlla daal di garantir làmminam muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allahu akbar al kon alquran yàlla sécuriser na ko pour wan ni waxu yàlla la subhanahu wa taala mu ne loolu nag dama ko wàccee ngir nga nekk xuppkat yi waaraatekat yi war a jubal doomu aadama yi waaye nag ci làkku arab laa ko wàccee bu leer leer moo tax arab yi dañoo am problème waxiinu yàlla ci biir alquran dañoo am problème pour lii de du waxi nit kon yàlla rek moom moo koy wax te pourtant ci seen làkk la mu jaaxal leen ci làkkin bi mu ne Muhammad li mu lay bëgg yónni yëgal mooy wa innahu alquran bii ma la jox la fii zuburil awwalin ci téere samaawiya yi bépp asamaan boo xamante ne jógee na ci kaw asamaan bàyyi ko ci man publicité na am na lu ñu ñëwee ëllëg alquran la moo tax mboolem shara'i yu nekkoon ci yooyu le téere yëpp mi ngi seen tëtti téere alquran bi moo yàlla daal di ko wax nag na nga ko jottali gannaaw ba ma la ko joxeel yaa ayuha nabi balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam tafal fa ma ballagta risalatahu wallahu yaasimuka min annas muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam naa nooneel bi ak pexe band yi bëri nañu waaye lii bis boo ko yëkkatee noonu dina bëri de waaye nag maa la wax jottalil yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo ragalee wala ngay yoxi yoxi jottali wuloo in lam tafal boo ko deful fa ma ballaxta risalahu yeggaliwuloo mission bi nga xamante ne jox naa la gis nga Muhammad nu muy wax yàlla nu muy waxee Muhammad waaye nag bul tiit wallahu yaasimuka min annas man yàlla maa lay aar ci doomu aadama moo tax gis nga doomu aadama sooy wax ak doomu aadama yi jël leen comme ay nawle jël leen ni comme ay jullit fa nga taxaw di wax ak kala ko dàq mi ngi toog di la déglu fa ngay taxaw di wax yàllaa la baaxe nga koy wax bu ci gis sa bopp gëmal ni am na ko toog lu ëpp la nga xam xam na ko waaye nag na nga fexe sooy wax sedd ci yàlla sedd ci yonent sallallahu alayhi wa sallam nga sellal wala buy tiit bu ragal pour mën a wax dëgg doomu aadama yi mu tax yàlla teg ci wallahu yaasimuka min an naas man yàlla fexey noonu man maa la ciy aar kon doomu aadama dafa war a am fit bu fekkente mi ngi jottali kaddu yàllaam bu mu xool bëtu doomu aadama bu mu xool lu neex doomu aadama na xool lu neex yàlla subhaanahu wa taala ndax jottaliwul kaddu papaam wala yaayam wala maamam mais kaddu yàlla la joxe nii la ñu joxe kaddu yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla wax ko loolu inna allaha nag laa yahdi al qawma alkaafirin loo mën a wax wax yéeféer yi mënuñoo fexe ba jub ndax du ma dugal leerub njub ci seen biir xol alquran moom mooy alquran téere bu mujj bi nga xamante ne yàlla wàccee na ko yàllaa ko aaral boppam ci lépp loo xam mën na dem pour ñu soppi ko yàllaa ko aaral boppam ba du réer ba mukk te ku xool adduna lu mu doxee alquran dootul ti ba yowmal qiyam muhammad benn kaamil la fi bàyyi woon ci jamonoy xulafa u rachidun ñu dénkoon ko Hafsa doomu num feti nu teti Umar ibn Xattaab di soxna yonent sallallahu alayhi wa sallam tey fii rek ñaata kaamil la fi nekk ñaata dënnu doomu aadama ci ay jullit ay cinq ans quatre ans six ans huit ans noo dénk tey alquran mi ngi ci google mi ngi ci disque dur yi mi ngi feneen kon yàlla ba mu waxee ni alquran yow muhammad demal rek waaye mën naa koy aar ndekete loolu dëgg la te yàlla waxoon na ko tey muhammad buñ ko yeewoon moo gën a mën a xam aaya alquran bii may wax lan lay tekki inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafizun muhammad sallallahu alayhi wa sallam man maa wàccee alquran jox la waaye maa koy aar yàlla aar na ko wala aaru ko yàlla aar na ko wala aaru ko wallahi yàlla aar na ko moo tax subhanahu wa taala waxam du fanaan àlla la mu wax rek ñee nga xam saxaaba tey kiraam tey bu ñu toogee ba ñëwaat tey dañu mën a dëgg bu baax a baax alquran par rapport ak ñun ñi nga xamante ne fekkee wu ñu démb moo tax jullit ñi nañu góorgóorlu islam dem na ba nangul jullit bi déglu bi ngay déglu alquran jàng bi ngay jàng alquran jaamu yàlla la bu lay jegele ak sa boroom lan lay mujje mujlibun li rahmatillah la muy waral moom mooy yërmande yàlla mu tax yàlla mu wax wa iza quri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun mu ne bu ñuy jàng alquran ni ngeen ko déglu waaye nag waxuñu déglu nag waaye nag ànd ak ca tekkaaral noppi ngir lan naa finalité bi mooy laallakum turhamuuna man yàlla dinaa leen tëtte yërëm kon alquran déglu ko jaamu yàlla la alquran jàng ko jaamu yàlla la waaye est-ce que ñun aaya bi ñu ngi koy def ñoo ngi koy def ñu ngi koy nangu est-ce que bi buy wax est-ce que ñu ngi déglu est-ce que télévision buy jàng alquran es ce que ñoo ngi koy déglu est-ce que atelier tailleur yi ñu ngi teg alquran est-ce que ñu ngi koy déglu est-ce que marché yi bu ñuy teg alquran est koy déglu oto yi est-ce que bu ñu koy teg ngi koy déglu ak koñ yeeg mbedd yeek yu mel noonu laa la laa loolu amul moo tax mu ne niñ koy fonkee dañ ko war a fonk lu ëpp lu ñu fonk suñu drapeau réew nga xamee sagara la ñu coloré ko muy verte jaune rouge sagara la boo demee tey ci marché bi am ko waaye wëral nañ ko ay charte ki loi ba dañ koy jox benn symbole boo xamante ne da nga koy nitati fonk demal ci armée nuñ koy lemee demal ci gendarmerie nuñ koy wàccee ak nuñ koy téyee noonu ñu koy fonkee nii sax moo raw ñu yore ni ñu yore seeni doom ngir lan parce que loo gis protocole la waaye est-ce que protocole boobu jullit ñi def nañ ko ci biir alquran est-ce que def nañ ko ci biir alquran oto buy daw ñuy dawal nu mu tati wàcce yëkkati drapeau bi ndaw buur a ngi taxaw daañu jël sa permi dóor la ay contravention boo moytu sax nga am prison vingt 24 heures kon nag alquran moom mooy nu fekki balluwaayu lépp loo xam ne jàmm doomu aadama yi ndaxte alquran moom moo organiser dund doomu aadama bi ndaxte ku saxoo alquran ci ay jàngaleem ci àdduna ak alaxira ngeen rek ngay am moom mooy téere bi nga xamante ne moo gën a mottare liin boo xamante ne pour toute l'humanité moo tax képp kuy jàng al alquran ak koo mën a doon ngay jullit doo jullit même buñ ko transcrire en anglais et en français da ngay yëg ni yow yàlla yu xawti bu ko yàlla yow lay xal yow lay waxal moo tax yàlla di wax alquran innahu illa dikrun lil alamin mu ne alquran bi téere la boo xamante ne pour képp kuy mbindeef la muy doomu aadama muy jinne loolu lu muy tegle ala chamulatihi maanaam l'universalité du Coran alquran universel la du jullit ñi nag ñoo ko moom parce que ci mbindee yi la ko yàlla wàcc mu des nag nga tuub dugg ci biir islam approprier ko di ko jàng waaye alquran saa yoo koy jàng ak koo mën a doon da nga yëg ni yow yàlla yu xawtib ko yow yàlla la yow la xal kon nag moom alquran moom mooy nekk ci kaw lépp loo xam pas-pas la pas-pas bu mu mën a doon ah doctrine bu mu mën a doon bu ñu créé te doomu aadama yi ko moo xam doctrine ci wàllu politique moo xam ci wàllu diine moo xam ci wàllu waaso dafa tegu ci seen kaw te yooyu ñuy créé yëpp dafay dem ba wuuteeg jubluwaay shari'atul islamiya ndaxte day ëmb ay saa lu dul dëgg day ëmb ay naxaate day ëmb lu ñuy wax noteel fekk noteel boobu ñu ngi koy def ci turu diine islam fekk noteel boobu ñu ngi koy teg ci turu politique. nooteel boobu ñu ngi koy teg ci wàllu sur le plan culturel day dem ba nga xamante ne nooteel lay andi wax ba fexe ba doomu aadama boo nga xam ne endoctriné nga leen da leen di jëfandikoo di leen jëriñoo teg leen loo xamante ne yàlla sax tegu leen ko alquran muy téere gi nga xamante ne moo gën a dëggu ci lépp loo xamante ne yaa ngi koy jàng wala dégg nga ko ndaxte yàlla subhaanahu wa taala moo seedeel loolu wa man asdaqu min allahi hadisa ana ku gën a dëggu yàlla ci wax dafa set te sell te tedd ndaxte yàlla moo ko wax innahu la quraanun karim alquran bii dafa tedd nekk ci téere goo xamante makk noonun maanaam téere bi dama ko ñoŋal téere bi dama ko suturaal ma ngi ko dogale ci lawxil mahfuz du am lenn lu ci dugg loo xamante ne bokkut ak man sama bëgg-bëgg man yàlla tedd na ba nga xamante ne laa yamassuhu illa al mutahharuuna mayu ñu nit mu war koo laal téye ko moom kaam bi tànk setul laabul ci yaramam laabul ci ay yéreem laabul ci bërëb bi mu taxaw ndax sell bi alquran waaw nga ne yàlla lii ne pour lan la mu ne tanzilun min rabbil mi ngi wàcc bàyyi ko ci yàlla subhanahu wa taala kon nag jullit yi jàngal say doom alquran ak yar leen ci njubug alquran dafa war ngir ñu war a bànneexu neexaayu njàng alquran ak mën a dégg neexaayu alquran mën a comprendre mën a am tamit bànneexu di déglu alquran ndaxte ibnu abbas moo wax jële ci leen sallallahu alayhi wa mu ne inna allazi laysa fi jawfihi shay min alqurani kal bayt alxarab mu ne ki nga xamante ne dënnam amul dara ci alquran dafa mel ni néeg bu maxe bu màbb bu daanu boo xam ne kenn soxla wu ko maanaam borom dafay dund waaye dafa mel ni néew la moo tax yàlla subhaanahu wa taala di gën a dëggal loolu mu ne kitaabun anzalnaahu li yaddabbaru ayaatihi wa li yatazakkara ulul albaabi mu ne téere la boo xamante ne dama ko wàcce ngir doomu aadama yi ngara mën a fexe ba jël alquran boobu approprier ko jàng ko xam ko gëstu ko ba la ca nekk ci ay njàngale ñu fexe ba di ko dunte si jëfee moom mooy téere bi nga xamante ne moo garantir ñëw yonent sallallahu alayhi sallam moom mooy buum bi lënkale diggante asamaan ak suuf moom mooy kóllëre goo xamante ne moo nekk diggante jaam bi ak boromam subhaanahu wa taala jamono bu nekk ba yàlla di doolu asamaan moom mooy ballukaay bi nga xamante ne mooy ballukaayu diine kuy wax ci diine te waxoo yàlla nee na wala yonent bi nee na wax jooju sànni leen ko moom mooy lisaanu diin moom mooy làmmiñu diine islaam moom mooy jumtukaay ak yoon di gën a baax gën a jub gën a leer te sell ngir jaam bi pour mu yegg borom bi subhaanahu wa taala moo tax yonent sallallahu alayhi wa sallam mu ne iqra'u alqur'ana fa innahu yaati yawma alqiyam shafian li ashaabihi yéen doomu aadama yéen jullit ni jàng leen alqur'an ndax njëriñam alqur'an ndax dina ñëw soppali ku jëmm mu ne yow yàlla maa doon sa kàddu sa jaam bi dafa ma doon jàng di ma gëstu di ma xam di jëfe ay nutati njàngaleem kon nag lay amul kenn ku nekk ci lay amul ndax heure yi ñuy passé di ko passé ci grand place yi ngir werante kanamu télévision yi kanamu nu mu sunuy téléphone ak ordinateur ak yeneen place su caaxaan kay sunu texe suñu jàmm daal mooy soobu ci ndigalu alquran te sunu texee di sunu ñàkk jàmm mooy sori bi ñuy sori walla di gàddaay ci njàngale nu tëdd alquran loolu lu muy andi ji sori bi ñuy sori alquran moom mooy andi yàqu-yàqu jikko yi fenn xoolal nu mu feesee réew mi nifaaq mooy hypocrisie opportunisme ingratitude xiyaana muy war ñàkk sàmm sa kàddu wax waxeet ay autorité yoo xam ne tey bu ñu leen tegalee seen i band ak lu ñu leen tere seen la ñu waxoon démb ñoom ñëpp delluwaat nañ ci génn ci la nga xamante ne loolu la waxoon xoolal réew bu dee ba nga xamante sa wax ak sa kaddu mënatoo ko sàmm moo tax imaamu Sénégal yëpp benn aaya alquran war nañ ci góorgóorlu li war ci ntitu xutba ndaxte mbas ba mu ñëwee dañ leen waxoon xutba leen ci waaye nag war nañu nu tëti nu tëti xutba lima taquluuna maa laa tafaluuna kabura maqtan inda allahi an taqulu maa laa tafaluun ñépp war nañu xutba ci loolu lu tax li ngeen di wax da ngeen di ci rocciku bàyyi ko ba nga xamante day mel ni du yéen yéen a waxoon wax ji yàlla mu ne ku def loolu mer na mer goo xamante ne boo xam ne doomu mënu koo dékku na ci imaam yi wax kon nag loolu mooy nu mu tëti réew mi nu mu toll ci wàllu politique dem na ba nga xam ne sori bi ñu sori alquran faggu xaraam dara nekkatul dara njaaloo bi ci mag ñi ci xale yi dafa bëri lëmba réew mi ak yeneen ak yenn yoo xamante ne dafa ëmb réew mi ba nga xamante ne te mi ngi gën di yokku nag dafa dem ba mel ni comme feebar boo xamante ne feebaru cancer la jafe na loolu pour war ko mën a nu ti faj waaye ñiy wax ci wàllu yàlla buñ tayal ba mukk parce que ñu tayee mu gën a yàqu loolu yëpp mi ngi dem ci mu muhammad ay jooytoom biir alquran ci suratu furqaan muhammad wax na ko aya 30 ya rab inna qawmi ittaxazu haza alquran mahjura yow yàlla maa ngi lay jooytu sama xeet samay nit samay ñooñ jàppee nañu alquran bi daal di ko gàddaay woon ko gannaaw waaw dootuñu ko toppatoo yeneen lañuy toppatoo dem na ba doomu aadama yi fa am nañu ñu bëri ci ay jullit yoo xam faaletuñu alquran lañ leen gënale mooy li ñu gën a gënale mooy dañuy feeñal seen yëg-yëgu xol seen cawartey cër ci waxu mbindeef boo leen waxee yàlla nee na day mel ni yàlla waxul yonent bi nee na dara du leen yëngal waaye bu ñu leen waxee nit wax na rek seen yaram ngeen gis ko ñu commencé nag di yëngatu na di wane ni wax nga nag jot nga sama xol kontaan naa bég naa dem na ba doomu aadama foofu la toll mais yàlla yonent waxoon na ko yaa qawmi inna qawmi ittaxazu haza alquran mahjura gàddaay nañu alquran leneen moo leen neex ci ay wax waxi mbindeef waaye du wax yàlla du waxu yoon sallallahu alayhi wa sallam moo tax yàlla mu ne ñooñu wa man azlamu mimman dukkira bi ayati rabbihi summa arada anha inna min almujrimin muntaqimun mu ne ki ma gën a tooñ mooy ki nga xamante ne tudd nañ ma wala tudd samay aaya alquran wax samay wax waaye mu dëddu wala soofantal ko waaye nañu xam ne ñooñu maa ngi leen comme ay kàccoor danaa fayu xooral yax yàlla muntaqimun al intiqam fi lugati al arabia maanaam mu damay fayu yàlla xooral dafay fayu diggante moom ak jàmbe yowmal qiyaama kon nag dëddu waxu yàlla soofantal waxu yàlla yëkkati waxu sa leader politique waxu sa sa yëkkati sa sa sa sa waxu leader diine sa leader boo xamante ne sur le plan culturel la muy artiste muy musicien wala sportif am na ñoo xam ne yooyu la ñu gën a yëkkati que li nga xamante ne moom la yàlla wax moo tax pour jeexal alquran moom mooy liy dundal ruuxu jullit bi moom mooy delloo doomu aadama niteem ba yeggale ko ci yërmande yàlla may ko nag lu ñuy wax dal mooy as sakinatu daaxiliya as mooy xel bu dal moo tax yàlla subhaanahu wa taala mu ne innama almuminuun allazina ida zukira allah wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imana wa ala rabbihim yatawakkaluun mu ne jullit dëgg ñu gëm yàlla dëgg mooy ñi nga xamante ne suñu tuddee yàlla seen xol tooy seen xol neex ñu am bànneex am bànneexu ngëm yàlla gën a jubluwaat seen borom seen xol jublu ci yàlla subhaanahu wa taala buñ demee ba nga xamante ne wax nañu ay aaya alquran aaya alquran yooyu day fexe seen gënum yàlla di gën a yokku mu ne ñooñu de wa ala rabbihim yatawakkaluuna ñoom ñoo jël seen mbir yëpp jox yàlla subhaanahu wa taala aaya bi gudd na waaye boo demee ba fin yàlla mu ne ñoo ñëpp dinaa leen dugal biir ajana subhaanahu wa taala yal na yàlla leer suñu xol ak alquran yal na yàlla leeral suñu xol ci alquran te mu def alquran muy suñu ramm yowm alqiyama yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def allahuma salli ala sayyidina wa sallim

الذي جعل القرآن هداية للناس وأشهد أن محمدا عبده ورسوله علم القرآن فكان خير معلم القرآن الكريم هو كتاب الله وحجته البالغة على الناس جميعا قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وقال تعالى بالحق أنزلناه وبالحق نزل ختم الله به الكتب السماوية وأنزله هداية ورحمة للبشر قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه أستغفر الله لي ولكم rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala man ursila rahmatan lil alamin sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam amma baad alquranu alkarim huwa wasiqatu nubuwa alxatima wa yanbuu wa lisanu ddin alxanif wa sirajuna fi xayatina nahtadi ilayhi wa nahtakim wa bi awamirihi wa nawahihi niamal wa inda xudurihi naqifu wa naltazim saadatuna fi suluqi sunnanihi واتباع منهجه وشقاوتنا في إعراض عن طريقه والبعد عن تعاليمه يقول سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون وقال أيضا من ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى اللهم اجعلنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا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 الله أكبر الله أكبر asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah yëpp yan ko yàlla teg ñi feebar di ko tëddaale di ko toxaale nekk ci kër yi ci hôpitaux yi ndax fépp foo xam ne place bu production dañu yàlla teg mbir mi yooyu ak kii yooyu yooyu jël wax seen tool yàlla noonu ko yan ko yan ko yan yàlla faj aam yëpp yan yàlla faj aam yëpp yan yàlla leeral suñu bopp leeru alquran yàlla leeral suñu xol ak leeral alquran leeral suñu yàlla yàlla wala nit ñi yëpp yal na yàlla teeru ak yéen a dem dafa am ay mu la mën a ko yàlla yàlla ñu ngi defal yéen yàlla may ñu wér ñu def suñu xol te ñu koy wér ñu yàlla lay ñaan insha allah te yàlla ko yàlla ko ñu xaar ñu yàlla yàlla mën a yàlla yàlla salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh ñu ko ñu ko ñu ko ñu ko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 imaam sëñ Cheikh ñu ngi koy siyaar bu baax a baax gannaaw bi nga xubba gannaaw bi nga jiite jumaa ji gannaaw bi mbooloo mi julloo ba pare daal di dem taxawaay bi nga xamante ne tey ji am na ak bis bi nga xamante ne tey ji yàlla su borom dogal na ne bisub àjjuma ji méngoog weeru koor taxawaay bi nga xamante ni l'islam da koo amee ci diggante doole bi ak tolluwaay bi est que mën nga ñu see dëgtal tuuti. waaw recommencer alors nga ne waaw. ma ni gannaaw euh, bisu tey ji tombeeg bisub weeru koor. te jii mu tombeek weer boo xam ne weeru sell la mu doon bisub ajjuma tey gannaaw ba nga jiite ba pare tolluwaay bi ak taxawaay bi waaw te tey tam muy mujj tamit ci koor gi taxawaay bi ak tolluwaay bi lan nga ci gis. waaw euh, euh, ñun lu ñu war rek mooy ñiy wax ci yàlla li leen war rek mooy wax naa ko sànq mooy jottali kàddu yàlla bi te bañ cee gis seen bopp roy ci yonent sallallahu alayhi wa sallam yonent moom la yàlla doon waxal waaye yàlla da ko wax qul innama ana basharun mislukum yuuxa ilayya Mouhamed ak daraja bi lu muy foor di rëy rëy rëy yow Mouhamed waxal nit ñi pour ñu ñeme la mën a wax ak yow waxal ni yow man bindeef nga waaye nag ak li ngay doon bindeef yëpp nañu xam ne foofu ngeen tolloo waaye nañu am fuñ la wegee benn côté côté mooy innama yuuxa ya waaye nag yàlla mën lay waxal ngir ma wax ak yéen kon foofu dañ fa war a rek Mouhamed jox ko tolluwaayam jox ko gëddam jox ko màggaayam ki nga xamante ne nag moom yonent bi gisatuñ ko moom mu yàlla baaxee ko muy wax ak doomu aadama yi na xam ne du ñàkk am na ku ko gën a xam la muy wax kon na modeste ci li muy wax na modeste bu mu wax wax boo xamante ne nit ñi dañuy gis ni ci moom day wane ni man maa xam waaye na wax avec modestie parce que day jottali kàddu yàlla jottali kàddu yonente bi foofu la war a yem léegi nag mu des nag yàlla mooy jubal ndax yàlla su dafa wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxal rek naka laa tax tahdi man ahbabta xoolal yàlla fi mu ko yóbbu waxul innaka laa tahdi waaye innaka laa tahdi man ahbabta mënoo fexe ba nga gën a sopp def ko sa biir xol nga jubal ko te fekk neexuma man mu ne waaye nag la ci yàlla teg walakin allah yahdi man yasha man yàlla may jubalaate moo tax toujours nañ dee ñaan yal nañ yàlla jubal yal nañ yàlla jubal kon message bi dañ ko war a transmettre jox ko jullit ñi lu ci des ñi bàyyi ko loxo yàlla ki nga xam ne dafa bëgg a dégg waxu yàlla du xool ci sa jëmm ji bu xeeboo gi du ko xeeb day xool wax bi nga xamante ne wax nga ko rek ci yàlla nee na yonente nee na mu gis ne lii nga moo nekkee woon rafetul baaxul kon aaya alquran bi wax ma waa ji wax ma wax ma saar ndangam la nekk danaa dem seeti ji saar ba ak numéro ba keneen firil ma ko ma xool ndax firi ba ban njëriñ laa ciy gën a jël jël kon nag ñun ay message lañu parce que dañuy wax le meilleur vecteur pour transmettre le message de Dieu c'est l'imam mën nga ko wàññiwaat nga ne l'imam est le meilleur vecteur pour transmettre la message divin et le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam kon moo tax nag ku yéeg fii doomu aadama yi toog ci naaj bee du yaay du mbaaxu papa ñoom li tax ñu toog ci naaj boobu li nga leen di wax yàlla nee na la wala yonent nee na waaye boo jëloon wax ji dindil loolu nga gis leen ñoom ñoom dem seen yoon kon nit ñi dañ ci bàyyi xel toujours modeste saa yi ñu waxante doomu aadama dañu modeste te toujours image yu yàlla la ñu war a véhiculer que ñoom ñuy véhiculer seen image di wax ni am na leneen luñ ci sox ci wàllu buzz ak yeneen ak yeneen te loolu dafa commencé yàq télévision yi léegi dem na boo nga xamante ne télévision bi da ngay gis nit ñoo xam ne dañuy foowee diine bi di ko caaxaane ndax seen mbiru bopp ndax seen mafia bopp ndax seen business bopp day dem ba nga xamante ne léegi seen wax ay xaqataay ak ree la ñi koy déglu tamit ay xaqataay ak ree la parce que mënoo ci gis njub mosoo gis nu te ragal yàlla mënoo ci toj xolu doomu aadama ba seen gëm yàlla yokku ci parce que ñoom ñoo andi image boobu waaye yàlla booy wax ay waxaam nit ñëpp nañu xam ne yow sérieux nga ci li ngay wax yow li ngay wax gëm nga ko waaye sérieux nga ni nga koy génne nit ñi war nañu am yëg-yëgaay ci heure bi nga noonu la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam meloon kon nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañ yàlla teg ci yoon googu rek waaw soo gisee nag ma woowaale sama kilifa yi euh, rafetul man may wax ñoom ñoom nekkuñu fi waaw moo tax mu waxaale ci sax am na lu ndaw loo xam ne sax bëggoon naa ci sax dugaatu sax l'état ñoom tam ñu leen di laaj sànq dafa am xutba boo xam ne sànq da nga koy yëkkati mu intéressé li nga xamante ni mooy doomu aadama yi léegi nag nga am beneen baat boo xam ne tam da nga koy yëkkati waat pour nga toog sax waxtaani fi diin sax day jafe ba ci télévision yi sax léegi da boo jàppee télé mu leen ngay profité xool tam fa caaxaan nga def ko léegi tolluwaay boobu noonu léegi naka la ñu a def tey ji naka ngeen def ba jël loolu noonu soppi ko ci nga xamante mooy ndaw yi waaw xam nga li ci a am solo mooy su fekkente yaa ngi sur le plan culturel sur le plan média sur le plan communication dafa am ay firme firme yoo xamante yu ngan lañu dañu am ay sponsor dañu am doole xoolal léegi heure bi nga xamante jullit bi war na ko wu ci yàlla heure bi ndogu ndogu maanaam luy jiitu ndogu caaxaan la après ndogu caaxaan la télévision boo tourné ci yooyu la ñuy caaxaan dañuy dem bay wax ay wax dem bu dégg naa ci euh, télévision wax joo xamante ne kenn waru ko wax waaye dañuy gis ci biir plateau yi tamit ñoo xam ni dañuy suufeel yàlla ñoo xam dañu am par parloo diine ci ay kuréelu diine soofantal yonent bi soofantal yàlla yëkkati ay mbindeef yooyu tam mi ngi ci kon dëkk bu demee ba mel noonu dëkk boobu catastrophe la jëm te dama lay wax ni lépp lu xeet waroon def ci lu bon ci loo xam ne yàlla war na ko mbugal Sénégal mi ngi ci Sénégal ñu ngi ci te nit ñi nañu waxante ni ñi dëgg te wax alquran wax ni ñi wax naa leen sànq yàlla ba mu waxee yonent sallallahu alayhi wa sallam nooneel bi gënoon bëri ci Muhammad mooy ay biir famille am la ak wax Quraysh ay yéeféer yu am kattan yu am doole rey rek mooy seen mbir waaye yonent yàlla da ko wax takkal sa fit te wax te jottali man maa la yónni wallaahu yaasimuka mina naas lu warul dal sa kaw day sa kaw waaye bu fekkee ne dafa am looy moytu ak looy ragal te ki nga xamante ne moom nga jàkkaar lool moytul dara pour def lu ko neex ci diine bi booy wax saaga yàlla wala joggete alquran gis nañ ko fi ku nekk ku nekk gis na yooyu waaye ñooñu bu ñu amee fit def lu bon waaye yow war nga am war fit wax wax wax ju rafet te nag teg ko ci nag yàlla nee na yonente nee na saa yow wax yàlla nee na nit ki wedd nit ki weddi weddiwu la ndax waxoo sa wax woy jur wala waxu waxu waxu keneen kon yàlla nee na yonente nee na kon li am solo moom mooy ak lu mu mënta doon zaharal fasad fil ard bi ma kasabat ay naas yàlla ci boppam waxoon na ko amul lu bees loo xamante ne ci ki jàng bees na ci yow parce que boo jàngee alxuraan lu xew fii gis nga ko yàlla am na lu ñu ci àddoon mu ne mbonte fees na kaw suuf ak biir jéeri bi nit ñi fu nekk la ñuy defee lu bon ba léegi mi ngi ci télévision yi xam nga di tax télévision di wax ay wax yoo xam wax yu ñaaw te ñu war a àddu du ñu àddu waaw ñoo xam waroon nañu àddu mais du ñu àddu waaye ku laal seen yëfi bopp wala seen yëfi maam ñu àddu ñu xeex waaye yàlla dafa tumuranke ci Sénégal yonent dafa tumuranke ci Sénégal lu waaye neex yàlla ñu ne dof waay wax neex yonent bi ñu ne dafa dof waaye ku ñu wax sa maam dara nga ne kii deful xaaral ma am fu ma jaar ak moom loolu mooy lan kon yàlla amul ku ko xeexal waaye nag bis bu yàlla waxee man maay xeexal sama bopp du fi bàyyi kenn du fi bàyyi kenn waaw kon nag loolu rek laa ci bëggoon yëgal waaw gannaaw alhamdulilah wax ji eh, message bi fa tay noonu la ñu ngi koy rafetlu fa tabaarakala yal nañu yàlla may dégg ak topp xanaa daal lu luñ ciy wax ndax daanaka matale na kon ñu matali ko ñaan rek ñu jàng fatiha julli ci yonante bi ñaan yàlla defal ñu jàmm koor gi yàlla def ko mu jeex ak jàmm li ci jàmm yàlla yàlla nangu ko ñiy firi alquran yàlla dimbali leen ndax li eh, message bi ñoom ñoo koy leeral ci langu nit ñi kon yàlla leen yàlla saxal kon ñu jàng fatiha julli ci yonante bi bismillah allahumma salli rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi l axirati xasanatan wa qina asaba annaari allahuma salli ala sayidina muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbi wa sallama tasliman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulilahi rabbil alamin imam yi nag imam gay imam fall imam boy macha allah alhamdulilah sant yàlla alhamdulilah alhamdulilah